Bonjour à tout le monde ou bien bonsoir. Cela dépend de votre GMT, votre Greenwich Meridian Time. Au moment où je vous parle, il fait 18h que je vais vous dire bonsoir. C'est un honneur et un immense plaisir encore une fois dans cette interview Rap Rêve. Donc nous ñu avec ak boy si Benen facette hein. il se nomme Mr Dala Babs Dal na Yeah, Yeah, cool, nice, nice. ¿Cómo está? Yeah, yo estoy muy bien. Hace mucho tiempo que yo no te veo. Sí, porque... Buen... bueno uh, uh, buen porque... bueno estoy aquí para trabajar muy duro, sí. c'est trabajar muy dur está buena respuesta bon bu ñu jógee si loolu étudiant la ah lettre la nekk département session espagnol sax la ñuy wax kenn wax département espagnol ba en fait euh, daal Babs tey jii nii ñu def benn compétition ah euh, compétition bi ngeen nekkoon dix artistes euh, de ce fait ñuy ñuy nga koy jaayante jaayante tey jii ba dem final isam nan ngay préparer final bi. bon di ko préparer rek xam comme dab quoi mm-hmm. waaw xam yokk fighting bi aussi mm-hmm. voilà. Ah, instant euh, comme yokk fighting bi mais nan nga gisee compétition bi en tant que rappeur. xama euh, xama xama au calme la quoi oui au calme la lépp au calme nice quoi. au calme mais est-ce que tey ji daal Babs man gars yi ma waxal yëpp nee duñ maye dara te luñ leen may ñu jël est-ce que yow di nga maye. jamais never never I will never do it. incha allah ah. mais ni nga ko waxee nii sa moroom noonu la ko waxee moom tamit nee na duñ la may dara mais est-ce que affaire bi danga ko teg mel ni slogan wala loo xam ne tey da ngay ñëw joindre la parole à l'acte. non loolu dul boole wax la rek. voilà loolu la. waaw loolu boole wax la foos lii incha allahu rabi xam on va la gagner quoi si. ah est-ce que est waxee nii yomb na de. non incha Rabbi, ah. non lay démé. est ce que paré sur tous les plans sur le plan mental physique sur le plan est ce que ce gars yi sax paré na ñoom. non ñëpp moom walaay lazim tout est cool. xam nga waaw. si plan writing bi skill ji bi jab bi flow bi. fep matna. na ah. <laughs> lépp ah. matna mom na Rabbi. xam nga juste tamit euh, juste tamit euh, ñu teg si biir compétition bi gis nga ne amna le 28 euh, le 29 septembre mu don li nga xamné ne moy moy moy mooy set setal.

so maa ngi woo ñëpp xam nga maa ngi woo ñoom xam nga Alves Daala gars yi xam nga xam nga sama gars fi teew nii ñëpp quoi. pare nañ daa pour ñëw jàpp si quoi. ñëw amaat lu quoi. Ah. voilà ak xam nga voilà si acte bu nice la quoi. ok nee na acte bu nice la mais est-ce que tamit don de bi le 12 te ku wax don de sang wax li nga xam ne tey ji euh, mooy mooy mooy maye deret et ku wax maye deret wax ne dangay ngay une vie et que donc ku sauver vie rek yàlla yow war na la tegal ay grade yoo xam ne ay grade yu bari la est-ce que pare nga tamit nga wax gars yi pour ñëw maye deret pare moom xam naa da ngay maye. yee waaw waaw ah. <laughs> si incha allah rabbi. moom bëgg nga waaw. xam nga maa ngi woo gars yëpp xam nga vraiment xam nga amul cool quoi. amul mais daal dafa mel ni dafa xaw a ragal gars yi nii dafa mel ni yow ragal gars yi quoi daal. non non sax. mais daal ma gis ah, xam nga xam nga wala dër bi ngay bañ ngaa gis. Eh, loolu la loolu la nag loolu la loolu la. noonu la demee noonu la demee si si si. noonu eh, la demee gars yi gars yi bëggee nii pour ñu exprimer wu nii mais dara gars li ñu wax rek wax lu tuuti. Hmm? wax lu tuuti. joblu. job lu bari rek. Eh, kon noonu lay demee. only kon donc nu mu bëgg nga nga joxewaat message bi ñi nga xam ne tey ñu ngi lay seetaan lu nga xam ne tey mooy sa mot de la fin à part fin. so xam nga j'appelle bon tout le monde quoi. Ah. xam nga à waaw xam nga rek xam nga xam nga ñu teew. xam nga enu bagage yi ñëw xam nga xam andi ko fii quoi xam nga man loolu laay wax nii si. mais gars yi am na ñu naan Jura lay dem am na ñu naan euh, Pantour am na ñu naan euh, Inter ah yow daal fii lay ñëw. non fii la jëm incha allahu rabi fii la jëm. ah fii la mot de la fin. bon xam nga xam nga di big up ñëpp rek quoi. xala bi la quoi. ok donc maa ngi taxaw ak ah, Mr Dou ah bokk si team ki nga xam ne tey jii mooy Dalla Babs ah mais mais euh, Dou tey nan ngeen di préparer final bi ak ban ban message ngay ngay ngay def pour à l'endroit ñi nga xam ne tey ñu ngi lay seetaan. waaw tout d'abord maa maa ngi nuyu gars yëpp gars yi nga xamante ne ñu ngi fi teew ñëw pour dooleel suñu suñu MC muy Dalla Babs xam ne day day représente di def lu rafet ci side bi ak yooyu noonu d'abord il est engagé day def ay actes fii nii yu nga xamante ne.

Euh, day jëmal kanam Bargny mooy don de sang beeg yooyu noonu yëpp donc loolu dañuy lancer message gars yëpp ñu ñëw teew mm-hmm. ku nga xamante ne war nga mën a maye deret mm-hmm. nga xam ne mm-hmm. sa mbokk mënoon na fa nekk te mënoon na ko soxla léegi yow nga ñëw nga maye deret bu gars yi ñëwee tam pour set setal muy teg beeg fu mu mënti doon ci Bargny ñun ñëpp ñoo war a dem ñu jàpp ci xam xam ne voilà suñu ay doom ñoo ko moom quoi. ñëwaale par esprit faire fair play non fii moom fair play moo fi am. Ah. waaw fii fair play moo fi am daal Babs gars yi jàmm lañ ko xamee moom borom jàmm la waaw moom du dox ci ay caaxaan wala yooyu noonu yi tamit même esprit bi la ñuy doxee quoi bu ñu ñëwee dañuy ñëw voilà yëngal dinañ pëndal moom loolu moom amul amul wax dañuy ah. pëndal dañuy pëndal yëngal après ñëw jël affaire yi. delloo bu yàgg dañuy pëndal jël affaire yi pan après du ah ñu jël ki nga xam ne tey ji mooy allo alo yow tamit ah, ban message ngay la ngay lancé ak nan ngeen waajalee final bi. pas avant tout damay rafetlu seen teewaay parce que aussi tamit émission bi mu bi mu débuté ba tey ñu ngi siy gis jaam salaam rek xam nga ñu ngi siy damay suy mais aussi tamit damay gërëm tamit sama rapport mooy Daara Babs ñun moom lañ am mooy suñu staff te mooy suñu rapport avant tout xam nga fexe ba soutenir ko xam nga dem nañ dem nañ premier tour qualifié dem demi-finale qualifié en plus final bi le 4 octobre inshallah mais inshallah le 4 octobre moom.

exemple lii fi jot a xew nii aussi door a sang bi tamit da siy baax pour ñoo xamante ne ni mooy loolu seen loxo jotul seen ginnaaw ñu man leen jàppale si loolu tamit ñun moom dinañ def xam nga benn mouvement bu garaaw ñëw sa setal bi aussi doole sang bi tamit di ngeen ñu fa gis incha allah te ñëw feeñ ji sax boo aytuwul. ok le 28 le 29 le 4 e le 12 ñu delluwaat li nga xam ne tey ji moom la rab reef teg mu jeex tàkk after ñu ñëwaat. ok yow ñu ngi taxaw ak ki nga xam ne tey ji mooy William fii moom bari ñu tax lay wax kenn dootu ko fa présenté Will nga dëkk euh, sa copain muy Daala Babs euh, tey ji lan nga mën mën a wax si Daala Babs. maa ngi bëggee yëpp gars yi yëpp xam wax teewaay bi affaire bi naaj na trop parce que affaire bi yombul aussi quoi xam nga gars yi def déplacement déplacement pour rien que Daala Babs affaire yooyu noonu mais bu ma sori si wax ji quoi parce booy la booy bu am. respect la aussi si grand frère bi même si petit frère am yi ah, boo xoolee parce que jox na gars yëpp cër amul ku ko mag ku magul affaire yooyu noonu xam nga te aussi mu ngi dund lu metti xam nga étant jeune nekk xale bu ndaw nekk si yoon xam nga ñàkk papa ñàkk maman affaire boobu dafa tar quoi te aussi terew ko résister continuer ay études am affaire yooyu noonu xam nga kon moom il est un peu te jantal booy la quoi parce que situation bi muy dund nii fekkoon yeneen gars yi la heure bi kenn waxatu ko quoi maanaam mën na changer sa vie quoi affaire yooyu noonu mais moom mu ngi koy gérer xam nga la ñaan nga ko rek laa mën a yàlla mooy mooy may yàlla yàlla borom bi motal li ci des quoi. Ah. yooyu noonu sax yaa ngi waajal final bi quoi ak bi waaw man yëgu ma woon sax xaw ma woon sax en fait day rab. Uh-huh. barki Sëriñ Bamba xaw ma saay fa lañ koy wax xaw ma. saay fa bi ma woon si kóolam xaw ma. mu xool ko ne ko man c'est la première fois ma sib que ne da ngay dóor ay affaire mais affaire bi naaj na te booy yi nii xam nga selon ni ma déggee ku si nekk sa baat doo seen morom quoi xam nga continuer job bi yàlla bu baax na mooy loolu. ok noonu la demee mu loon témoignage ki nga xam ne tey ji mooy daal Babs ok donc d'ici là portez-vous bien ñu demaat ci beneen artiste pëm.